yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ki santam euh, di am mbégte lool ci mobilisation bi surtout wàllu jigéen ñi dafa mel ne kon donc réunion bi ñu ko waxee sànq réunion jigéen ñi la ndax seen mobilisation dafa am solo waaye nag ñu ngi sant ñëpp euh, réunion bi nag euh, comme ni ko Cheikh waxee li ci ëpp solo mooy ay cant ki ngërëm ndax nañoo jógee ci ay élection présidentielle euh, ñu bare ci yéen ñu demoon seen kër seen maanaam seen i gox waxtaan ak ñoom euh, présenté nañ suñuy candidat ñu ngeen jàppale ko wooteel ko kon bu ñu sañoon ñun kenn ku nekk ci yéen dama fay dem sant la gërëm la loolu incha allah prévoir naa ko incha ci weer yi ñëw waaye dama waxoon rek ñu daje tey pour waxtaan.

ñu war cee waxtaan nag ñu seet euh, naka la ñuy demee ci élection yooyu comme ni ngeen ko xamee ñi ngi demoon doon jàppale Ousmane Sonko maanaam ñun mooy la coalition ànd soxali Sénégal xanaa ñu bare ci yéen xam ngeen ànd soxali Sénégal ndax bañ ko sos ak léegi 2017 euh, lañ ko sosoon demoon nañ ci ay élection euh, député yi coalition boobu mooy continuer dox. donc maa woote ci turu sama coalition pour euh, sant ak gërëm euh, ñi ma àndoon liggéey muy waa PASTEF bu Ousmane Sonko waa Teranga Sénégal ñu ngi woon ci coalition bi ak yeneen yoo xam ne ni ay association la ak mouvement yoo xam ne ni ñëw nañ ànd ak ñun duñ jàppale la président Ousmane Sonko donc loolu njàngan mu xawoon a yàgg la maanaam mu ñu doon def pour seet. kan la ñu war a jàppale ci élection présidentielle yi yàlla defal nag biñ defee suñu analyse euh, lu bari ci mbooloo mi ñu d'accord dal, daal candidat Ousmane Sonko moo nekkoon candidat bi gën euh, pour ñu jàppale ko donc décision boobu la ñu jëloon euh, ñu ngi koy assumer te wax di yàlla résultat bi ñu am au niveau national nekk na résultat bu am solo di ko féliciter di ci féliciter tous les Sénégalais yi nga xam ne jàppale nañ ko ci élection présidentielle yi léegi nag génn nañ ci élection présidentielle. Euh, ngeen xam bu baax lim mu demee ni mu demee mooy euh, président Macky Sall ak ñu mu àndal nañu l'élection ci élection yi donc mooy li may wax rek euh, dafa am légalité am légitimité xëy na côté légalité bi cours des tribunaux yi muy cour d'appel avec Demba Kangi la cour constitutionnelle valide nañ élection yi jox ko légalité mais légitimité mooy peuple bi peuple bi moom li mu le wane ko ci urne yi ci jour vote bi moy Macky Sall moom Sénégal yi nañ ko donc légitimité bobu donc da ko perdre waye nak ay pexé def nako ci walu yoon ba yenn magistrats yi euh, jaar ko ci cour d'appel ak conseil constitutionnel euh, ak Sénat ñu defal ko lo xam ni moy mooy gagné élection yi loolu ñun ay légaliste lañ danañ ko accepter waye li am solo moy élection yi am na rëq-rëq yu bari bari donc du ci jour élection bi rek mo am ay rëq-rëq ndax élection yi ñaari at lañ koy préparé ñetti at ba na ñuy bindoo ci ci fichier électoral bi ni ñu joxe carte yi ah ci jour vote bi ni ñu defaree PV yi ni ñu ko yëbbee euh, euh, la commission départementale ni ñu yëbboo euh, PV yi ci cour d'appel ci commission nationale bi yooyu yëpp am nay rëq-rëq yu ñu ci gis même ci jour élection bi ñu bari ci Sénégal yi mënuñu voter ndax seen carte dafa jaxasoo ñu gis aussi tamit lu bari loo xam ne nii def nañ ko ci yeneen gox yi mooy ay xale yu ndaw yoo xam ne amuñu 15 ans amuñu 18 ans di voter te yooyu yëpp li taxoon mu jóg mooy fexe ba gagné la bëggoon. donc moom yàlla def na ko donc jël na tous les moyens qu'il faut muy moyen état moyen pouvoir moyen politique pour gagner euh, la justice sénégalaise jàppale na ko ci loolu donc li ñu mën mooy accepter euh, euh, décision yi nga xam ne moom moo jóge ci euh, les tribunaux mais li am solo mooy la légitimité légitimité mooy peuple bi liñ ñu bëggoon mooy changement lañ ñu bëggoon te changement boobu donc cour d'appel ak conseil constitutionnel suivre le peuple sénégalais. ñu di ko regretter bu baax ndax xam na loolu aussi recul démocratique la bu boo xam ne nii jàppoon nañu Sénégal élection kenn kenn mënut ko sàcc mais à notre grande surprise gis nañu Sénégal ba légui ay élection mën nañ koo euh, sàcc mën nañ koo foqarti te loolu lañ gis avec le président Macky Sall donc ñun suñu combat day continuer euh, ñu ngi ci politique bi depuis 25 ans di politique nekkoon nañ PDS gis nañu PDS tamit am na jafe-jafe fa nekk ki ñu doon jàppale muy Abdoulaye Wade tamit daanaka amut ambition pour le Sénégal te ñun aussi waa Touba ñu ci bari ñaan ak man ma gis gis ñoo seen bopp ci biir PDS ñu tax donc bu ñu xalaatee vingt ans bi ñu def ci politique wonat jot nak ñu taxawal suñu fi bop pour am ay ambition pour le Sénégal am ay ambition pour Touba pour département bi pour ñu xamné kon département bi ak Touba won nañoo am ñu leen taxawal fa ñuy jëlee décision yi muy dans un gouvernement boo xamné ni wa Touba dañ cey bok lolu moy suñu xex combat politique. ba tax na donc moo tax ñu taxawal suñu coalition ànd soxali Sénégal pour bokk ci ay jongante yoo xam ne yëpp day am Sénégal bu ñu yàlla moyen ay moyen ak jàppale maanaam population yi li ñu fas yéene mooy incha allah élection bi ñëw tey la coalition ànd soxali Sénégal dana bokk ci élection yooyu. ci loolu nag kon la leen tàllal loxo yéen ñëpp xam ne coalition ànd soxali Sénégal Touba la juddoo waa Touba ñoo ko moom li ñu bëgg mooy bokk ci ñi nga xam ne ñuy defar Sénégal.

Sénégal gépp dëkk yu ne ñu ngi daw di ñëw di ñëw ci dëkk bi kon won waroon ñu am doomi Touba war nañoo jóg pour taxaw pour liggéeyal Touba pour liggéeyal Sénégal te liggéeyal Touba mooy liggéeyal Sénégal ndax Touba mooy Sénégal ñun loolu lañ gëm te loolu lañ jàpp ñu ànd ko ay ñun ñoo xam ne nii ñu ñu bëri ñu am maanaam pas-pas la ci wàllu liggéey ci wàllu ngëm-ngëm ci wàllu gëm seen bopp parce que ñun fekkoon ne leneen moo ñu tax jóg dem na leneen ndax ki yor nguur gi tey juróom-ñaari at ñu sàkku am ñu pour ñu nekk ci ñu nekk wetam pour ànd liggéey moom waaye ab doxalinam moo ñu neexutoon ba tax na donc mun ñu ànd ak moom ci loo xam ne nii lu dëgg ba tax na donc lépp loo xam ne nii day jëmale Sénégal ci kanam day day dëgëral démocratie bi day dëgëral maanaam la justice sénégalaise ah day xeex ay ay ñàkk ak ndóol de loo xam ne nii day tax xale yi mën a am liggéey. da tax na ni xale yi jigéen ñi danañu mën am autonomie mën am ay financement mën a am liggéey ñu ci loolu la ñuy dox kon loolu ci la ñu tàllal loxo ñu jëm ci élection local élection local nag mooy élection gox-goxaan bu ëllëgee buñ ci àggee jàmm ci war a tànn yéen ñi yéen yéen ñu tànn ngeen war a falu incha allah yéen liste bi may jël ci yéen lay jógee yéen la ñuy tànn ngeen war a falu bu soobee yàlla kenn ku nekk kenn ku nekk na nga toll sa doole sa mbooloo.

lolu moy tax ma xam man bala ma dem election ma xam man mbolo and ak man inshallah allah la la ñaan donc kenn ku ne ci yeen mu jël ci ay fiche bo demee nga remplir ñi nga xam ne am nañ carte électeur tour bi sante bi carte électeur bi carte CDAO bi numéro téléphone bi ak quartier bi lañ ci bind. kenn ku ne ci yeen xëy na responsable nga bu mën na jël ndax fiche bi maanaam fukki ñu la def kenn ku ne sa mbolo num tollu nga remplir ko su ko defé buñ ko indé ñu waajal élection locale yi ñëw bu soobee yàlla ma xam man bala ma def élection kat naa mën a xam kat sama mbooloo kat nii la toll ak naka la ñu organiser ci élection yi incha allah pour kenn ku ne ñu xam foo nekk. loolu mooy information yi su ko defee tamit incha allah dinañ def benn programme boo xam ne nii programme tournée la euh, parce que am na ñu bari ñoo xam ne nii euh, ñu ngi door a xamante euh, amuñu occasion ci élection présidentielle yi ñu dem seeti leen. kon nak li ñu moy à partir d'aujourd'hui ñu dem séti leen waxtaan ak ñom parce que politique nga dem rencontrer nit ñi la askan bi la xam lu ñuy dund lan la ñun nak loolu lañ bëgg xam li ñuy dund lan la yàgg nañ ko def indi nañ ci euh, ay saafara ci yu bari ci dëkk bi ak li wër dëkk bi ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu jàppale jigéen ñi loolu moom def nañ ci def ci def ci def ci xanaa kay nañu yokkaat yokkaat suñu loxo bu soobee yàlla. ndax jigéen ñi à chaque fois dañuy soxla ay financement ñu ñu wutal leen ay yëngu-yëngu yoo xam ne nii danañ ci mën a jàpp te loolu ñi ñi maanaam ñi ngi ci woon ci wàllu man formation yi jàngal jigéen ñi ay formation yoo xam ne nii xam-xam la boo xam ne nii ñu ngi defaree saabu ñu ngi defaree eau de javel ñu ngi defaree ay jus yooyu yëpp def nañ ci fii ci Touba ak dëkk yu war lu toll ci junni maanaam groupement incha allah danañ yokk loolu parce que loolu nekk na yëngu boo xam ne nii am na xaalis. te jigéen ñu bari ñu ci gis seen bopp kon incha allah danañ ko renforcer ci ay financement bu soobee yàlla leen loo xam ne si mooy tamit ñu xam seen i xalaat mu mën a ñëw ci ñun ñuy seet mu ñu ànd ak yéen liggéey bi loolu daal mooy euh, ci gàttal ci tënk xëy na peut débat bi ama bëggoon a jox nag vraiment ñi nga xam ne xëy na euh, ñu door ñëw ci liggéey bi ñu jox leen kàddu gi bu ñu mën a jël kàddu pour ñu gën a xamante ñoom ñu gën a xam seen quartier yi ñu jógee euh, lan lan la ñuy jànkoonteel bu dee ñu mën a indi ay xalaat ki tontu ci yooyu yëpp kon maa maa ngi taxawal foofu sama kàddu encore li ci ëpp solo mooy ay cant ki ngërëm ci élection présidentielle yi ñu jógee comme ni ma ko waxee euh, am nañ ci résultat yu am solo au niveau de Touba au niveau national.